waaw mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal santar suñu boroom mi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci ab néegam fas yéene jël benn bind bu aju ci wàllu fiq rasul sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin yàlla kum namm ci yow yiw màndarga ba mooy dalay xamal sa diine doonte ne ni ab jaam lépp lu muy sàkku ci boroomam da koy sabablu muy xam googee la koy waral mooy jóg nangoo jàng nangoo déglu ñu sukkandiku suñu téere bi di minhajul muslim di téere boo xam ne rawatina ndaw ñi nga xam ne français rek lañ jàng war nañoo fexe ba am ko dana la jàngal li nga war a gëm lu mu doon ci aqaid jàngal la lan mooy jukkoy lislaam ci axlaaq jàngal la teggi ñi lislaam sa digganteeg sa boroom ak ñi ngay jëflante kaw suuf muy aadaab jàngal la ibaadaat yi mooy naka ngay jaamoo yàlla ci julli yaag ak yaag yi demee noonu noonu it la lay jàngale li ñuy tudde muamalaat mooy jëflante yi ci wàllu commerce ak ak relation yi loolu moo tax ba ku nekk wala yàlla mayul nga mën a yegg ci téere arabiya ndaw bu nekk war naa fexe am téere boobu ci traduction ba ca nekk ci français bi ñi ngi ko doon topp ba suñu borom mi dëppale dëppale ñu ñi nga war a jël tey li nga xam ne mooy almadatu rabia bu aju ci koor te mooy fi wujubi sawmi ramadan wa bayaani fadlihi mooy almadatu rabia fi wujubi sawmi ramadan wa bayaani fadlihi bu dee mool bu bees bi yaa ngi ci waaw page deux cent cinquante et un ci mool bu bees bi ñu xam ne it mbokk ci ngëni li yàlla la léeg-léeg bu ay événement daan jub si daanañ tëb téere bi dem wax ca événement boobee waaye yàlla moo dëppale téere bi niñ koy toppee bi ñëwee ba ci koor ñu jàng ko ci baraxlu loo xam ne même bu dul woon ak loolu dañ doon tëb yeneen màdd yi ñëw ci baraxlu bi comme niñ koy defee ci bayaanu timis bi kon yal nañu yàlla dëppale ngërëmam ci lépp su ko defee yow mi yor sa téere day wax ni lii day wujubu sawmi ramadan lan mooy wareefu ni koor lii di wooru ramadan muy weeru koor siyaamu shahri ramadan waajibun bilkitaabi wa sunnati wa ijmail umma lii di woor weeru koor farata la bu ñuy fekk ci téereb yàlla ba di ka fekk ci sunna yonente ba di ka fekk ne mboolem xeetu lislaam dëppoo nañ ci képp ko jàpp ne koor du farata ci yow xamal ne bokkoo ci lislaam waaye mboolem jullit ñi dëppoo nañ ci ne weeru koor farata la ci jullit ñi faqad qaala taala shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinaatin min alhuda walfurqaan lii di weeru koor day ci la ñu wàcce alqur'aan yàlla def ko njub ñeel mboole mi nit mboole mi nit muy nekk lay yu leer ci ak njub di teqale yoonu dëgg ak yoonu fen muy furqaan fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu képp koo xam ni ab julit la seede ne weeru koor dugg si na suñu boroom mu ne na woor weer woowee loolu ma nga ca suratul baqara wa qawlu rasulillahi sal qawlu rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi it lu wax ni buniya al islaamu ala xams islaam ñoo ngi ko tabax ci kaw juróomi pilier shahaadati an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah la ca jëkk mooy seede ne yàlla dong mooy ki yeyoo ñu koy jaamu ca it yonent yàlla muhammad mooy ab yonentam ñaareel ba wa iqaami salaa mooy taxawal la nga xam ne mooy julli waxuñu julli rek waaye taxawal julli léegi lañ doon jàng ci timis fa waylun lil musallin alkaange ñeel na ñuy julli te mooy ñi koy sàggane wa itaai zaka ak joxe azaka wa xajjil bayt ak aji makka ci ku ko man wa sawmi ramadan ak daadi woor lii nga xam ne mooy weeru koor lii mbokk ci lañu teg lislaam képp koo xam ne màbb na ci benn màbb na la nga xam ne muy piye lislaam wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أورى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة ليغا خامن موي نيابوي الإسلامي أك فندماي دين جي دي نيت لا عليهن أسس الإسلام كي نيو نيت يوي تلا جو فندما الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم képp koo xam ne bàyyi na ci ñett yi benn ku mel noonu yéeféer la ca dana dagan ñu daal di tuur la nga xam ne mooy deretam mi ngi noonu waaw waaw dana dagan ñu tuur la nga xam ne mooy deretam bi ci jëkk mooy shahaadatu an laa ilaha illa allah mooy seede ne kenn yeyoowul ñu koy jaamu kudul yàlla wa salaatul maktuba ak la nga xam ne mooy jullik farata wa sawmu ramadan ak la nga xam ne mooy woor weeru koor almuhim kon bépp jullit dafa war a xam ne mbokk weeru koor farata la ni julli nekkee farata loolu la jullit war a xam donte ni ne suñu borom yàlla lépp loo xamee ni nii dañu ko tëralal da caa teg ngëneelu àdduna ak ngëneelu àllaaxira te loolu waru ko woon loolu waru ko woon waaye ci ngëneelam la mooy mboolemi jaami yàlla dafa ànd ak ngëneelu àdduna ak ngëneelu àllaaxira fadlu ramadan lan mooy ngëneelu weeru koor li ramadan fadailun azima fadailu azima weeru koor day ay ngëneel yu màgg la àndal wa mazaya adida ay ràññee ku gu ràññee ku yu bari it la àndal ay jagle yu bari lam takun li gayrihi min ashuhur loo xam ne yeneen weer yépp amuñu ko wal ahadisu taaliya tusbitu dhalika wa tuakkiduhu xadis yi mu lay bëgg a jàngal dana saxal loolu di feddali loolu li ci jëkk qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam salawaatul xams lii de julli juróom day wal jumaatu ila al jumaa ak bisu ajjuma ba ajjumay dellu si wa ramadaanu ila ramadan ak weeru koor ba weeru koor dellusi mukaffiratun lamma baynahunna mukaffiratun lima baynahunna ida jtunibat alkabair day far mboole mi bakkaar yi nox nekkoon ci seen diggante fii ak yaa ngi moytu bakkaar yu màgg yi mbokk julit doomu aadama li mu mën a def ci bakkaar kenn xamul nu mu nu mu toll ci kenn mënu caa mucc waaye julli gu nekk ak moroomam dafa am bàkkaar yu muy far ya ca nekk diggante ba ajjuma ba ajjuma day far mboolemi bàkkaar yi nekkoon ci semaine bi weeru koor day far mboolemi bàkkaar yi nekkoon ci at mi fii ak jullit bi moytu na li ñuy tudde alkabair mi nga noonu rey nit yaag riba yaag njaaloo yaag yu deme noonu waaye yeneen bàkkaar yépp da ngay gis ne weeru koor bu ñëwee da koy far lépp li amoon ci at mi wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man saama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi koo xam ne day weeru koor jot na nga woor ko gëm ne lii farata la bu yàlla farataal yaakaar pay guy bawoo ca yàlla ku mel noonu day mboole mi bakkaar ya nga jiitaloon yépp yàlla baal na la ko doonte ne dañ koy delloo ci xadis bi nekk ci kaw fii ak yaa ngi moytu bakkaar yu mag ya ci ca des yépp yàlla baal na la ko wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa raaytu rajulan min ummati yalhas atashan man de yàlla won na ma ci barzaq ay góor goo xam ne sama xeet la bokk ma ngay nekk di appaat ngir mar kullama warada xawdan muni aminuhu heure boo xam ne dem na ci benn déeg ngir naan ñu dàq ko tere ko ko fa jaahu siyaamu ramadan fa saqaahu wa rawaahu noonu la ko weeru koor dikkale may ko mu naan ba màndal ko may ko ba màndi te lii mbokk waliyaasu billah mooy jurit la boo xam ne daana woor waaye saggan na nag ba yàlla teg ko mbugal ba nga xamee ni nii fu mu dem bëgg naan ñu dàq ko waaye koor ga mu doon koor te yàlla tax koor ga daal di ñëw daal di koy wallu daal di koy may mu naan doonte ne loolu ay xëybu la xamuñu naka lay demee وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان من day bu nekkee ci guddi ga jëkk ci weeru koor da ngay gis ne sufidati shayatin wa maradatul jan dañuy daal di tënk seytaane yépp ak ña nga xam ne dañoo féttirlu ci jinne ya wa xuliqat wa xuliqat abwaabu naar dañuy tëj mboole mi bunti sawara falam yuftax minha baabun falam yuftaxu minha baabun kenn du ci ubbi benn bunt wa futihat abwaabul janna ñu ubbi bunti àjjana ya falam yuxlaq minha baabun kenn du ca tëj benn bunt wa naada munaadin noonu lay woote aji woote yaa baaxiya alxayri aqbil ay yow mii sakku ak yiw jege sil wa yaa baaxiya char aqsir ay yow mi nekkoon di sakku ay lu bon rek gàttañ lul walillahi utaqaau min annar wa zalika kulla layla ca yàlla day dana am ñu muy goreel ci sawara ca loolu guddi gépp lay doon ca mbokk xadis yu mel nii day wan rek ne bisu koor weeru koor bu jotee suñu borom njéggalam day yaa bari woon na jurit da nga doon def suñu borom yàlla toppee la ko waaye ngir ngëneelu weeru koor mu baril di la jéggal gannaaw ba it mu ubbil la bunti yow ci buntu àjjana mi ngi noonu doonte ne ni àjjana ak sawara moom kenn demagu fa su ko defee it bokk na suñu borom yàlla malaaka bu muy yónni muy woo jaami yàlla yi ay yow mi bëgg aw yow profitool ngi noonu te mooy weeru promotion la weeru promotion la kon profitool balaa weer wee jàll waaye ay yow mi nekkoon ci la bon e waaye gàttal lool ba weeru koor bi passé ngi noonu onte ne ni baaxut waaye quand même ñoo te nañu ko dul def mooy am na ñoo xam ne weeru koor jotee bu dee jigéen ñaa seen col yu bon yépp ñu denc ko night club yi ñu doon dem ñu arrêté ko bàyyi yu bari ñu doon def ba weeru koor ñu doog a dëppaat loolu moo ko baaxut waaye nag ñoo tànne ña ko dul def loolu amul benn guddi ci guddi yi lu dul yàlla dañu yónni malaaka bu woo jurit ñi jëmaleen ci loolu lii lii kon mbokk ay ngeneel la yu tax ba julit ñi waroon a yàkkam ci lool la nga xam ne mooy chehru ramadan boobu nga xam ne suñu digganteeg moom daanaka ñaar fukki fan moo ci des yal na yàlla yeggale ñu teccu jàmm heure bu la yàlla ubbalee bunti ngëneel ngëneel yooyee da nga cay profito looloo tax mu lay wan fii ay jaamu yàlla yoo xam ni jullit bi war na koo waajal ci weeru koor bi di ñëw te mooy fi fadlil birri wal ihsan fi ramadan bu ñu lay wax ci ngëneelu def njëkk ak rafetal ci weeru koor li fadli ramadan qad fuddila kullu ma yaqa'u fihi min af'alil xayr wa adrubil birri wal ihsan ngiree ngëneel gi weeru koor am noonu it la yàlla di gënalee lépp loo xam ne def nañ ko ca tàbbi na ca ci ay jëfi yiw ak la nga xam ne mooy melokaanu njëkk ak rafetal yi tey am wa min zalik asadaqa la jiitu ci loolu mbokk moom mooy sarxe weeru koor bokk na jaamu yàlla yi ci gën mooy sarxe xam ngeen ne ki nga xam ne munta woor sax dañ naan ko na génne ab sarax kon sadaqa is qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan yonent bi dani sarax bi gën bu doomu aadama di génne mooy sarax bi ngay génne ci weeru koor wa qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man fattara saa'iman kaan lahu misla ajri saim min gayri an yanqusa min ajri saim shay'a ki woo ki ki woor ba ngoon nga may ko lum doge mboolem tuyaaba jam am ca kooram yàlla dala koy bindal mi ngi noonu wa qaala sallallahu alayhi wa sallam man fattara saiman ala taam aw sharab min xalaal képp koo xam ni dangaa dogal aji woor ci loo ko jox mu lekk wala lu naan ci sa alal ju dagan sallat alayhi almalaikatu fi saati chahri ramadan malaaka yi dañ bari di julli ci yow ci la nga xamee ni nii moom mooy waxtu weeru koor yépp wa salla alayhi jibril laylatul qadr jibril dana julli ci moom la nga xam ne mooy laylatul qadr ngi noonu tabarani solo na ko doonte ne lu ci bëri ñoom seen segg hadis dana des waaye almuhim mooy dogal ko wóor kookee loolee mbokk jullit ñi ñépp war ci bàyyi xel moom la ñuy sant suñu boroom subhanahu wa taala soo dellu woon daanaka lu toll ay trente ans ci gannaaw nit ñi xamuñu woon ci lii lu bari ba ba arab yi nga xam ne ñoom ñoo ñu gën a yeewu ci diini commencé weeru koor gu nekk ñu yónnee suñu réew ak yeneen réew ay ndogu yoo xam ne nii dañu koy séddale seen mbokk jullit ñu cay dogal ñu woor te loolu daawul jóge ci ay état ay nit ni ñun rek ñoo ko daan dajale ñu koy indi di ko def loole jàkk ji yàgg nañ fi nday ndog yu jóge ci dëkk arab yi donte ne coono bu rëy la daan doon da ngay nekk di foto nit ñi gannaaw ba di bind ay rapport ak ngeen xamul waaye gannaaw ba suñu borom yàlla mii ubbee xamal ne waaw xanaa du arab yi àjjana dong lañu bëgg lu tee ñoom li ñuy def ñun ñu def ko moo tax presque du jege ñaar fukki at bari na lool ay jàkka tey ci Sénégal soo fa demee ñu fay génne ay ndogu yu bari di jox doomu aadama yi avant corona bi ñëw dañ ko daan dajale di ko togg doonte ne suñu borom yàlla mi def lu ko soob bi corona bi ñëwee jox ñu beneen leçon leçon ba mooy buñ masaan indi di de- togg fii mbooloo mi daje fi xale yi mën naam sax ñoo xam ne du ñu ay jullit ñooy nekk di daje waaye bi corona bi ñëwee ñu jël loolee ñu daan togg def ko ay ceeb ay diw def ko ay bon xool ñi nga xam ne dañ koo yeyoo ku nekk ñu jox la sa bon nga dem jëli yóbbu sa kër di ci dund ak sa njaboot ci koor gi dañoo mujj gis ne ndekete lii moo gën téeméeri yoon moo tax même bi corona bi dem na yal na yàlla yóbbu ko ba faw ala kulli xaal atom daaw yépp mooy dañoo gis ni système boobee moom moo ëpp njëriñ ci nit ñi ca la nga xamee ne nii moom mooy togg bi ala kulli xaal suñu borom subhanahu wa taala buntu yu boobee nga xam ne nii ubbi na ko ci noonu it lañu ubbile buntu taxaw guddi di ci naafila te mooy li ñuy tudde qiyaamu leyl iz qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man qaama ramadaana imaanan wa ihtisaaba képp koo xam ne daa taxaw weeru koor yaakaar payug yàlla gannaaw bu mu gëmee yàlla gufira lahu ma taqaddama min zanbi dañ koy baal lam jiitaloon ci ay bàkkaar yi la mu waxoon ca koor ga loolu la wax ca qiyaam ba boo xam ne weeru koor yépp taxaw nga naafila ko dañ la baal sa bon nga bàkkaar yi nga jiitaloon doonte ne nag ñu bari dañoo jàpp ne dafa am lënkoo gu am ci koor gi ak naafila bi ba da ngay gis ku jàpp ne bu naafiliwul sax kooram baaxul déedéet naafile gi jaamu yàlla à part la koor gi jaamu yàlla à part la ñàkk naafile du tee nga woor ñàkk woor du tee nga naafile te loolu it ñu bëri xamuñu ko parce que nit ki mën ngaa am ngant ci doo woor yàlla nattu la yul see rek yu demee noonu waaye boo gisee jullit ñi daje ca jumaa ja di def seen naafile àndal ak ñoom naafile naafile gi ak koor gi jotewuñu dara mi ngi noonu naafile gi jaamu yàlla à part la kon wa kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yuxyi layaala ramadan yonent bi day da daan màggal mboole mi guddi weeru koor mi ngi noonu wa ida kaana al ashru al awaxir ayqaza ahla suñu masaan dem nag moom ba fukki guddi yee des day yee waa këram yépp wa kullu sagirin wa kabir yutiqu salaa ña nekk ci këram ci xale ci mag ñépp la daan yee ñuy dundal guddi koor loolu it ngir di sakku guddi ga nga xam ne li yàlla wax ci taxaw weeru koor la ca wax mooy laylatul qadr te yonent bi wax na feneen man qaama laylatul qadr imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbi koo xam ne nii tey jii guddig laylatul qadr dong nga taxawoon ci weeru koor yàlla dëppale la ak moom yàlla baal la sa mboole bi bàkkaar ngir xeeñtu guddi googee moo taxoon ba rasul sallallahu alayhi wasallam daan dundal fukki guddi yu mujj yooyu yëpp ñetteelu jaamu yàlla bi ci weeru koor mooy tilaawatul quraanul karim bari lool di jàng ci rëb yàlla bi إذ كان صلى الله عليه وسلم يكثر من تلاوة القرآن الكريم في رمضان يلنت بددان بري لول دي جانغ القرآن في ويركور وكان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن في رمضان جبريل دان نيو ديكو عندك موم دي جانغ القرآن في رمضان تا سني برم سبحانه وتعالى مونان يلنت عليه السلام إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا yàlla moo ne maa wàcce alxuraan ci sa xol ñoo ko ci dajale suñu ko jàngee topp ko la koy firi it ñoo la koy leeral te daan def kon weeru koor jotee guddi gu nekk jibril day wàcc ànd ak yonent bi di ko jàngal alxuraan di ko jàngal firim alxuraan mi ngi noonu loolu it taxoon na ba lu bari ci adduna bi bu weeru koor jotee nit ñi am waxtu woo xam ne dañ cay daje di leeral alquran comme na ko jibril doon jàngale ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rawatina bu dee ci ñoo xam ne langue arab bi dégguñu ko alquran bañ leen di jàngal ci arab xamuñu ci dara ñooñu it ñoo gën a yey ci ay njaago la ñoom ay tukulóor la ñoom ay espagnol wala anglais ñoo profitoo ci weeru koor ngir leeralal leen la nga xam ne mooy téereb borom bi jalla wa ala wa kaana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yutiilu alqiraata fi qiyaami ramadan yonent bi day daana guddal am njàngam ci taxawaayu weeru koor aksara mimma yutiilu fi gayrihi ci lu ëpp nam ko daan guddale ci leneen lu dul weeru ko faqad salla ma'ahu xudayfa leylatan kii di xudayfa ibnu alyaman mas na ànd ak moom julli benn guddi fa qaraa bilbaqara summa ali imran summa nisa rasul sallallahu alayhi wa sallam ci benn taxawaay mu jàng ci baqara ali imran ak suratu nisa mi ngi noonu soo laajoon cheikh ousmane da lay xamal ne loolu na yonent bi doon jànge taxawaay boobu munta néew lu mu néew néew deux heures de temps loolu munta munu munu munul gën a néew abadan deux heures de temps mi ngi noonu booleeg mu ne لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل du romb benn aaya bu yàlla di tiital nit ñi wax yéeféer yi mbugal bi leen di xaar dodul dana taxaw ne yàlla yàlla nag ñu musal ci mbugal boobee fama ni ngi noonu waaw kon loolu la ala kulli xaal boo demoon ci yeneen xadis da lay won it ne du romb benn aaya boo xam ne yàlla da cay bégalaate ci aljanna lu dul taxaw na ñaan fa ma salla rakaatayni xatta jaa bilal fa azanahu bisalaa avant ñaari rakk yi di mat bilal nodd na pour wane ne fajar jot na gis ngeen loolee mbokk da ngay gis kon sallallahu alayhi wa sallam naka la meloon ak naka la doon dundale ay guddeem فآذنه بالصلاة كما ورد في الصحيح وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة sunu borom jalla wa ala ba taxawalee ab jaamam di ko atte yowmal qiyaama koor day jóge fële naafile guddi jóge fële ni ñëw taxaw ci kanamu borom bi di ko ñaanal njëkk يقول الصوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار اي يو سونو بروم من ما كو تري وون لكم اك نانم تي بتيك ويقول القران منعته النوم بالليل فشفعنا به اي يالا من ما كو تري وون موي نلاو سي غوديغا اي يالا يال نك ني نانغول سونو رامو غي ني كوي رامو لولé da ngay gis ne yàlla day nangu seenu ràmm su dee ne ñeenteelu mbir bi ñu wax ci la nga xam ne ni moom mooy ramadan te it bokk na ci liñ ciy fàttali li ñuy fàtte woon li ñuy waxoon ci kaw même ku am ngant ca wóoroo nga la waay bari lool di jàngal quran kon ñeenteel bi mooy li ñuy tuddee al i'tikaf i'tikaf وهو ملازمة المسجد لعبادة تقربا إلى الله عز وجل اعتكاف mooy dem toog ca jàkka ja lënkoog jàkka ji toogaay boobu nga jublu ca jege sa borom jalla wa ala faqad i'takafa sallallahu alayhi wa sallam ولم يزل يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح يونتي بي عليه السلام داي دون ديف دي اعتكاف فكي غودي مujj ci wéru koor yépp da daan génn këram féete ca jàkka ja ba suñu borom yàlla faat ko année bu nekk noonu la ko daan defe mu ne it wa qaala sallallahu alayhi wa sallam al masjidu baytu kullu taqi jàkka day mooy néegub képp koo xam ni dafa ragal yàlla wa takaffala allahu liman kaana almasjidu baytahu birrawxi warrahma yàlla day dana gàddul képp koo xam ne daa jël jàkk mu def ko néegam te la nga xame ne nii mooy ak yaatal ak dal gum koy defal ak yërmaande goo xam ne dana ko ko jagleel wal jawaasi ala siraati ila ridwanillahi ila aljanna dana ko yombalal mu jéggi siraat jëm ca ngërëmal yàlla ba tebbi aljanna yal na yàlla defal ñu ko donte ni itikaaf boobee bokk na ci loo xam ne nii borom xam-xam yi moom dëppoo nañ ca mooy mën na nekk ci vingt quatre heures mooy nit ki dugg timis nga ñëw ci jàkka ji fanaan fi yendu fi ba jant bi sowaat nga génn muy vingt quatre heures loolee kii na am na ñuy nag ixtilaaf ci ñoo xam ne nee nañ mën na yiis loolu mooy mën na nekk benn guddi kese am na ñoo xam ne mën na nekk benn bëccëg kese ci nga yéene ñëw yendu ci jàkka ji bëccëg yépp wala nga yéene jant bi sona nga fanaan ci jàkka ji benn guddi loolu lépp dañ koy tuddee la nga xam ne mooy itikaaf donte ne rasul sallallahu alayhi wasallam nam ko doon defe moom fukki guddi yépp la daan def ba mu fi jógee ay soxnaam continuer loolu di itikaaf fukki guddi yu mujj ya baba ñuy faatu kenn kenn ba jeex loolu li tax ñu wax ko mooy doonte ne du suñu aada waaye ni jigéen ni góor mën a demee itikaaf noonu la jigéen mën a defee itikaaf dem féete ca jàkka ja ca la nga xam ne mooy fukki guddi yu mujj loolu kon mbokk dañuy gis ni moom mooy aju ca la nga xamee ni ngëneel la yu am ci weeru koor donte ne bind bi mu ciy teg mooy weeru koor kañ la ñuy jàpp ne jot na almaddatu sadisa fi subuti shahri ramadan weeru koor nal moo koy soxal yasbutu duxulu ramadan bi ahadi amrayni weeru koor daal ñaar yi dong ñoo ko mën a teruloo awaluhuma kamaalu shahri saabiq anhu wa huwa Sha'ban mooy mu daal di mat weer wa nga xam ne moo ko jiitu di Sha'ban di baraxlu fa iza tamma li Sha'ban salaasuna yawman naam naam naam naam waaw juróomeel bi naam juróomeel bi naam juróomeel bi kon bala ñoo dugg ci fi subuti shahr ñu wax kon juróomeel ba juróomeel bi ñu sopp ci weeru koor al i'timaar ca mooy dem umra ji wa huwa ziyaaratu baytillahi alxaram ca mooy ci weeru koor nga dem ziyaari ji kaaba ga li tawaafi wa sa'yi fi ramadan ngir wër kaaba ga daw safa ak marwa ci weeru koor iz qaala sallallahu alayhi wa sallam umratun fi ramadan taadilu xajjatan maiya ki nga xam ne dafa def umra ci weeru koor dana am tuyaaba ju toll ni koo xam ne dafa ànd ak man ci at wa qaala sallallahu alayhi wa sallam al umratu ila al umra kafaaratun lama baynahuma lima baynahuma la nga xam ne nii mooy umra ba baa ngay umra waat même bu doon fukki at loolu dana far la nga xam ne moo ca nekkoon loolu it di mi ngi noonu ak jaamu yàlla goo xam ne nii suñu borom yàlla yoonal na ko ñu mën koo def te la nga xam ne mooy shahru ramadan lu moo tax ba makka li muy jot ci ay nit ci ramadan léeg-léeg dana double sax la nga xam ne moom lay jot ci at kon ñu yegsi ci juróom juróomeel bi mi ngi noonu juróom benneel bi mooy fi subuti shahri ramadan يثبت دخول رمضان بأحد أمرين أولهما كمال الشهر السابق عنه وهو شعبان كم نينكا واخوان سانق ما يفك وير بك جيتو مات من شعبان فإذا تم لشعبان ثلاثون يوما فيوم الواحد والثلاثين هو أول يوم من رمضان قطعا سني دمي با خامني لي دي ويرو برخلو دم نان با 29 ني خول gis ñu weer bi ñu teg ci beneen bis muy 30 kon ci suba ga moom ñëpp dañoo war a woo mooy bis bu jëkk ci ramadan mais bu dee baraxlu mat na 30 jours wa saniyuhuma ru'yatul hilal ñaareel ba mooy ñu gis weer ba fa ida ru'ya hilalu ramadan heure bu ñu gisee weeru koor laylata 30 min sha'ban ca guddik fanweer ga te mooy tey le vingt neuf kon ñu daal di gis weeru weeru koor faqad daxala chahru ramadan wa wajaba sawmuhu su boobaa day nañu xam ne kon weeru koor moom dugg si na te wareef la ñu woor ko li qawlihi taala faman shahida minkum chahra falyasumhu suñu borom nee na képp koo xam ni fekke ne seede na weer bi na ko woor te seede boobee firiwul na yow nga gisal ko sa bopp waaye nga am xabaar ci ne weeru koor dugg si na su boobaa yow da nga ko war a woor wa qawli rasul sal allahu alayhi wa alihi wa sallam ida raaytum alhilaal fa suumu fu ngeen gisa weer bi woor leen wa ida raaytumuuhu fa aftiru su ngeen ko gisaatee wori leen fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata thalathuna yawma thalathina yawma su ngeen demee nag xool gisu leen mu daldi nëbbu ci yéen weer bi matal leen fanweeri fan imma baraxlu bi nañ ko matal fanweeri fan doog a woor wala ramadaan nañ ko matal fanweeri fan doog a wori loolu moom la ñu rasul sallallahu alayhi wasallam dénk ci wàllu googee ويكفي في ثبوت رؤية شهادة عضل أو عضلين من نك دنا دوي تي آه جسوي ركور سيدك كو خمنكو ماندو لا ولا نيار نيو ماندو جري اختلاف بتي ام تي بروم خم خم يي am na ñoo xam ne kenn ko maandu doy na am na ñoo xam ne it dañ ne il faut mu am ñaar ñu maandu إذ أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان دونت ne yonent bi alayhi salaam day wéyal na seede benn góor ci gis goo xam ne gis na ko weeru koor amma ru'yata shawaal amma nag bu dee weeru korite lil iftaar nga xam ne dañoo war a wari nga xam ne caami ñi dañ ko yàkkam ci lool fala tusbit illa bi shahadati adlayn loolu moom bala ñu ko nangu mu am ñaar ñu maanu ñu ko seede islam yu gis rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahadata adlin wahid fi fi iftar ndax gisuñu yonente bi alayhi salaam ma sa wariloo nit ñi ci gisuñu benn nit mi ngi noonu loolu mooy mooy sunna lonte ne borom xam-xam yi tamit am na ci ñoom ñu gis ni sahaaba yi utu nañu génération yi dund léegi te ji nit ñi ñeme nañu yàlla ñeme yàlla goo xamee ne nii moom war na suñuy teey du benn waaye joxafale rek na gis naa weer bi communauté yépp wari war nañu daal segg ba xam dëgg-dëgg di bàyyi xel bu baax buñ demee nag ba am ca ñoo xam ne nii moom wóor nañ ne ñii mën nañoo dëppoo ci fen loolee mën a yóbbaale nit ñi lu waral loolu itamit mooy jamono boo xam ne jamono bu yàqu la loolu nag dàqantiwul ak ne koo xam ni moom moom société ba mu dëkk seede nañ ñëpp ak mbaaxam ak bëgg diineem ak maanduteem su taxawee ne gis naa weer bi loolu dana engagé nit ñi waaye daal la xewal jamono yonent bi nga xam ne fen moom xalaatuñ ko woon loolee suñ jamono tey ji du n'importe qui rek la ñuy nangu rek mu ne gis naa weer bi tax ñuy mën a engagé umma bi yépp ci loolu loolee am na borom xam-xam yoo xam ne ñoom gisin boobu la ñu am wallahu aalam tanbih lii ak laaye biir la ak ra genneeku gu muy def man raa hilal ramadan koo xam ne yow da ngaa gisal sa bopp weeru koor wajaba alayhi an yasuum wa in lam tuqbal shahadata shahadatu koo xam ne yow yaa gis weer bi biñ ko waxee nit ñi gëmuñu la yow moom da ngaa war a woor wa man raa hilal al fitr wa lam tuqbal shahadatuhu la yuftir mu ne nag bu dee ne yow weeru koor nga gis ca nanguwuñu sa seede mu ne bu boobaa yow doo wori li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam as-sawmu yawmu tasuumuun wal fitru yawma tuftiruun koor mooy bis bi ngeen di woor dog mooy bis bi ngeen di dog loolu mbokk kon mu ne wal adha yawma tudaxuun bu dee tabaski mooy bis bi ngeen koy def donte bis bu ko mboole mi def donte ne lim jublu ci lii mooy wóorul teqale mbooloo mi maadaama kenn gëmu ko waaye it buñ ko joxee ndigal mu woor dañ ko jox ndigal mu wori su ko defee la ca gën a digg doomu mooy yow bu dee gis nga loo jàpp ne lii moom aw weer la ba nga gëm ko su boobaa moom bis boobu doo ko woor waaye nag doo manifester la nga xam ne mooy sa korite loolu la ñuy wax ndax la nga xam ne nii moom la islam bëggoon mooy korite gi mbooloo mi yépp àndandoo def ko mi ngi noonu tabaski mbooloo mi yépp àndandoo def ko loolu moo tax ba lenn ci borom xam-xam yi sax dañuy wax naan ki woore woon beneen dëkk ñëw ci benn dëkk boo xam ne ñoom yow matal nga sa koor donte ñoom mataluñu la gën mooy booy dog nga dog ci secret ba suba nga ànd ak mbooloo mi dem julli ji loolu mooy la gën la nga xam ne day tënk li donc mi ngi noonu mboolam islam kon mbokk incha allah jàpp naa dañuy doy looli ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na yàlla xamal ñu suñu diine te wërsëgal ñu dund ko mu nangul ñu ko wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain la ndax jigéen dana itikaaf sans autorisation jëkkëram déedéet lépp loo xam ne naafile la jigéen du ko def lu dul ci ndigalu jëkkëram moo taxoon ba naafile koor sax jigéen bu nekk ak jëkkëram amul droit di ko def lu dul mu jox ko ci ndigal loole kon la ñuy wax ci wàllu googee wallahu subhanahu wa taala aalam naam waaw ala kulli xaal mbokk waxtu yi moom des na des na des na des na tuuti waaw waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu waaw ci weer koor waaw ban teggin lañu war a sàmmoonte ci njàngal xuraan ci weeru koor mooy baril ko rek baril ko daal moom moo ci nekk ba nga xamee ni nii loolu yonent bi alayhi salaam waxoon ne alxuraan buñ ko jàng lu yées ñetti fan ndax ku ko jàng lu yées ñetti fan doo ko comprendre teewul borom xam-xam yi dañ ne su dee place ngeneel yu mel ne chehru ramadan loolee kenn terewu ko ci ba dañ lay wax ne ku mel ni imam Shafii rahimahullah daana def weeru koor bu nekk daana jàng xatmu bëccëg bi ak xatmu guddi bi loolu la ñu wax la ñett di ci moom wallahu subhanahu wa taala alam mi ngi noonu ala kulli xaal lu bëri woon ci borom xam-xam yu jëkk ya miinoon nañ ci ñoom weeru koor jotee bus bu nekk ñu wàccee ab kaamil kon mbir bi mooy na nga ko bari loolu daal mooy mbir bi xam ne it la gën te alxuraan ba ngay jàng mooy ba ànd ak qiyaamu layl waaye bu qiyaamu layli passé it journée bi yépp alxuraan loo mën a jàpp borom xam-xam yu jëkk ya ñoom imam Malik ak ñu mel ne ñoom yépp nga xam ne jàkk yonent bi lañ daan nekk di jàngale xadis ba weeru koor masaan jot dañuy bàyyi lépp féetewoo ak téereb yàlla bi di ko jàng guddi di ko jàng bëccëg loolu daal kon moom mooy la nga xam ne ni jurit gi nekk woon nañ ci bàyyi xel wallahu subhanahu wa taala alam waaw naam waaw asalaam alquran jàng bi mooy am solo rasul sallallahu alayhi wasallam nee ne kii jàng benn xarf ci téere yàlla bi am na xasana alquran bi muy doog wàcc ay yax lañ ko doon bind ak ay dëri giléem lañ doon bind alquran ñu dem dem dem ba mujj yàlla indi papier mi ngi noonu yàlla indi papier saxaaba yi xam ñoon luy papier yi li indi papier ñu ko ci bind tey it bu ñu demee ba muy reflété wu ci écran portable yi soo jëlee sa portable di ci jàng téere bi yàlla bi tuyaaba ja ngay am mooy tuyaaba ka doon jàng ci dariya ak xeere ñooy yem problème bi rek mooy jàkkaarloo nga ak xuruufi alquran bët yi di ci jaamu yàlla te it borom xam-xam yi dañ naan alquran bi ngay jàng di ko xool moo gën bi ngay këru di ko wax mi ngi noonu ndax bu boobaa xol bi day jaamu yàlla làmmiñ bi jaamu yàlla bët yi di jaamu yàlla donte ne ne am na ñeneen ñu naan la ci ëpp torox lu mooy la gën waaye jàkkaarloog xuruf yi di ko jàng loole dañuy gis ne ak jaamu yàlla gu am solo la ci bët lu dul na nga nekk ci biir julli soo nekkee ci biir julli moom la gën la nga mokkal loolu mooy la gën amma boo bëggee julli rakka yu bëri ca sa xifs demul noonu it man ngaa jëfandikoo sa kaamil wala nga jëfandikoo sa portable bu dee jullig naafila la amma bu dee jullig farata la bu dee am nga loo mokkal ca alquran su boobaa duñ la permettre nga jël ay kaamil di ko jàng ci biir farata bi mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah ah ala kulli xaal baril ko ci guddi gi mooy la gën njàngum alxuraan ci guddi moo gën la nga xam ne dañ koy jàng ci bëccëg loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ki nelaw ci xisbu yam waroon a jàng ci guddi mu biddanti su ko jàngee fi fajar xale ba ba jant bi di dem tisbaar daañ ko ko bindal ne mel ne na jàng na ko ci guddi ga loolu moo tax ba njàngum alquran xam nañ ne suñ borom yàlla subhanahu wa taala li mu wax ci ay aaya wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mi ngi noonu taxawal jàngal quran suratul muzammil suratul insan surat yu bëri ma ngay tagg ñay jàng alquran ci biir guddi ga loolu kon njàngum alquran ci guddi loolu moo ëpp tuyaaba jàng ba nga koy jàng ci bëccëg mi ngi noonu donte ne yonent bi bégal nañu ne lépp loo waroon a jàng ci guddi mu am ngant ba tax jàngoo ko nga fexe ba jàng ko avant tisbaar yàlla dana lu ko bindal ne tuyaabay ku ko jàng ci guddi ga wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam waaw dafa koo xam ne nii dafa romb ab jullit buy tux ci weeru koor mu ne boobu ba tey nuyootu ko wala ku li xaal day la gënoon mooy mu laayu ko biir xamal ko ne ne ko lii weeru koor la yow bu dee ne yow wooroo it bul nekk di manifeste sa ñàkk woor di tux di yàqal nit ñi seen koor laayu ko biir ci loolu loolu mooy la nga xam ne mooy la gën bu doon te ne ne dañ ko laayi biir mu fettirlu ca loolu loolee da ngay gis ne bu ñu jàppee ne bu ko nit ñëpp boycotté day loolu dana ko xatal loolee day doon lu am njëriñ ci moom moo tax ba demoon ci laxdari mu ne wa amma al fasiq fa yajibu hijranuhu boo xam ne ab kàccoor la dañ ko war a boycotté waaye loolu it moo ñu jàpp dana njëriñ loolu daal kon ñu ba li gënoon daal mooy mu lay ko biir te it continuer di ko nuyu loolu mooy gën mu romb ko bañ koo nuyu ndax gis nga fa mu ko féetale mooy kii du nuyoo et pourtant la tax mu koy mu wañ ko nuyu muy cigarette bi lu dul ne suñu mbokk bii di Aboubacar Jabir Jazairi rahimahullah moom daana wax ne boo rombee nit ki muy tux bu ko nuyu ndax nee na bokk ne asalaamaaleykum mu jël turu yàlla bala ko cigarette bi loolu loolu loolu moom baaxul waaw bu dee fekkoo ko muy tux daal tuxkat la fekkoo ko muy tux mën nga ko nuyu waaye foo ko cigarette bi ci gémmi ñëw nee na boo rombee bu ko nuyu moom loolu la daan wax rahimahullah wallahu subhanahu wa taala aalam ala kulli xaal mbokk kon ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal nañu mas may tawfiq wërsëgal ñuy fekk ramadan cam nangul ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain